fettaliwaat suñu coloré suñu cofeel suñu mbëggeel di sant yàlla bu baax ci jotaay bi ndax jotaayu xam-xam la euh, jotaayu laaj bi nag duñ ko tënk ci laaj ak tontu dañ koy tënk ndax boroom xam-xam boo jàkkaarloo ak moom dañ koy bàyyi kàddu gi ndax bu waxee mën a njëriñ ñëpp amaana bu ñu laajee rek dina yam ci ñun te it xel mën naa fatu ñu ngi jëm ci weeru koor te weeru koor ku ko wax wax jaamu yàlla ku wax weeru koor wax kilifa yi diñ ko bëggee woon kilifa yi diñ ko doon waajalee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dim ko daan teeroo ak bu ñëwee dim daan kontaanee ci weeru koor léegi dañu lay dénk kàddu gi nga ñaax ñu waxtaanal ñu jox ñu xam-xam ngëneel yi ci weeru koor ak ni ko mag ñi daan doxalee ak yi farate yi ak sunna yi ak li yàqu koor ak liy defar koor ak lan mooy ngëneelu koor asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa kon ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi yëpp ñu ngi leen di siyaar di leen ndokkeel ci ajjuma ji waaye di leen ndokkeel ci weer wi nga xam ne moom lañuy ñuy séenu mu nekk ci suñ kanam di ci ndokkeel mbooleem jullit ñi fuñ mën a nekk rawatina ñi nga xam ne ñi ngi dund ak ñoom ci réew mi dellu rawati ñi nga xam ne ñoo bokk barab bi di di jumaa ji di gërëm aima yi bu baax ci kàddu yi nga xam ne jotal nañ ko fii di leen ci ndokkeel yal na ñu yàlla may dégg ak topp xanaa baaxantal rekk la waaye duñ fi wax lu raw kàddu yi nga xam ne génn na fi ci lan mooy koor ak nan lañ ko war waajale kon borom bi subhaanahu wa dafa wax ne yaa ayuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laalakum tattaquun ayaaman maadudaat borom bi subhaanahu wa taala mu ngi wax foofu ne te bokk na ci li ci gën a am solo moo di bi muy oo foofu jullit ñi mi ngi leen ooxee turu ngëm mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla waral na ci yéen koor farataal ko comme nam ko warale woon ca xeet wa jiitu woon ñu dégge ci loolu ne nekk koor du wut ne xeetu yenent bi sallallahu alayhi wa ñoo ko njëkk def waaye mboolem xeet yi fi jaaroon daanañu or yàlla mosta dañ di dénkaane koor ci mbooleem xeet yi fi jaar yépp ba yàlla yónni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mun dund ci yenentu googu coono yu metti jafe-jafe yoo xam ne képp kuy jullit umpalewu ko benn ko yàlla jox ndigal mu ñëw madina bim ñëwee madina foofu la yàlla warale koor ci yenent bi sallallahu alayhi wa mu woote ko ci mbooleem xeetam ci ñaareele at ci gàddaay ak yenent bi sallallahu alayhi wa la yàlla waral koor xikma boobu yépp da ngay gis ne yàlla mbooleem lim waral ci xeet wi daf koy wàccee benn par benn di ko teg xeet wi benn bu ci dugg rek na nga yëg ne benn leçon dugg na ci jullit ñi mokkal nañ leson boobu mu wàcceewaat beneen leçon kon mbooleem ponki islaam yi juróom yépp nañ xam ne benn bu ci nekk rek école la boo xam ne dafa am lu ñu yàlla di jàngal ci école boobule la ko dalee ci shahaadatu an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah boobu ponk la boo xam ne yàlla mu ngi ci defar jaam bi pour jaam bi mën a dellu ci yàlla parce que jaam bi bu delluwut ci yàlla rek defaroogut kon mu ngi defaroo ci dellu ci yàlla subhaanahu wa taala su delloo ci yàlla ci baatab laa ilaha illallah baat boobu la muy màgg-màgg ci yàlla daf ko lënkale ak turu yenant bi sallallahu alayhi wa loolu dañ ci déggee ki ñi yàlla tegal ci suñ kanam mu nekk exemple bu mag bi mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te danañ ci déggee lépp lu bàyyeekoo ci yàlla rekk ki ko dékku mooy yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kooku la ko mbooleem xeet wi di nangoo kon royteef bu màgg bi bi nga xam ne amul kenn ku mel ni moom mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne moo dékku njubam yàlla mi nga xam ne képp ku bëgg a jariñu ci njub moomu yaa ngi koy royee ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi mu ngi wax léegi ci wàllu wasila wasila boobu bu màgg bi nañ xam ne mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne képp ku jàpp ci moom danga nga jokk ci yàlla te loolu mooy li war ci diggante jaam bi ak borom bi parce yàlla dafa wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduuni binduma jinne ak nit lu dul nañ ma jaamu jaamu googu nag niñ koy defee ñu ngi koy royee ci yenent bi sallallahu alayhi wa kon nañ xam ne ponk bu njëkk bi di laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah loolu mooy lii defar jaam bi te jaam bi bu defaroo na teg tànkam ci sunna yennant bi sallallahu alayhi wa loolu rek moo mën a tegtale na jaam bi defaru na waaye jaam bi oote woon na defaru na ci yàlla te tegu tànkam ci sunna yennant bi sallallahu alayhi wa sallam weddi na boppam ci ak defaroom kon dëgg-dëgg defaru jaam bi mooy roy yennant bi sallallahu alayhi wa ñu ñëw ci beneen ponk bi muy julli yonent sallallaahu alayhi wa ne na na ngeen julli ni ngeen gis may jullee sallu kamaa ra'aytumuuni usalli loolu it école la boo xam ne dañ ciy defaroo gis nga melokaanu julli yépp soo ko seetee danga gis ne jaam bi delloo na boppam ci melow yàlla subhaanahu wa ndax yàlla ci boppam rekk la nekk jullikat jotewut ak kenn dara nekkut ci leneen ci julli rekk la nekk kenn du ko woo mu wuyu la soxlawut pour woo kenn mu ngi màggal yàlla subhaanahu wa ngir yàlla moom rek mooy ki eyoo màgg gis nga yàlla ci tëjëleem gi ci melokaanam wi nga xam ne moom la feeñoo ci lépp jullit bi indi na ko ci biir julleem moo tax mu taxaw moo tax mu sëgg moo tax mu siggi sujjóot sëpp jaam ci suuf toog kon mbooleem tëjaliyaat yi nga xam ne noonu la yàlla tëjëlee ci kawnu bi jaam bi manifesté na ko ci biir julleem kon moo tax jaam bi bu amee dégg dëgg dëgg suy julli ci julleem googu amut lu julliwut ànd ak moom lépp ngi ànd ak moom di julli yàlla ñu ko yàlla déggloo nga jóge ci nga gis ne gannaaw julli lu ca topp asaka mu nga dagg ab xaaj ci sa alal nga jox ko yàlla ma ne soo xoolee danga gis ne alal ji ngay jël di ci génnee ab som di ko delloo yàlla ci waxtu nga liggéey alal jooju kon danga gis ne waxtu lu foor la ci jaam bi dëgg-dëggi wërsëgu jaam bi dëgg-dëgg soo ko seetee lépp mi ngi tënku ci waxtu moo tax arab yi di wax ne waxtu temps dafa mel ni jaasi benn nga jël jaas ji daggee ko wala jaas ji dagg la kon temps bi ci boppam lépp loo am rekk yaa ngi ko gañe ci temps bi nga gis jullit bi dagg na ci temps bi heure yi nga xam ne ci lay julli di ci joxe julleem kon asakaa ngi noonu mooy beneen ponk bi nga xam ne moo topp ci julli nga ñëw ci beneen bi nga xam ne moom lañuy séenu yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm te may ñu kàttan luñ ko wooree ak wërsëg wuñ ci dundee dundale ci te yàlla nangul ñi lépp te delloosi ko at yu bari mu di koor mi nga xam ne moom ngeen wax ñu wax ci koor nañ xam ne melow yàlla la moom it koor melow yàlla la yàlla mooy ki du lekk du naan aji woor ji bi nga xamee ne bana lekkam bana naanam lépp dellu na ci melow yàlla moo tax yonent sallallahu ne yàlla dafa wax ne doom aadama ay jëfam yépp ñeexal na ko lum def danañ ko ko fay benn ñu fayal la ko fukk mbaa yàlla multiplier ko ba juróom-ñaar téeméer mbaa bala ko soob mu ne bam mu des koor mu ne koor man yàlla maa ko moom man maa koy fayal suma bopp yàlla nag ni muy fayalee koor boppam bokk na ci dégg-dégg suuf yank yi mooy yàlla boppam la lay fayee aji woor ji bu kooram gi sellee amut sikk ne yàlla la ko yàlla di fayee bu la yàlla fayeexee yàlla nag doo nga yàlla boo xam ne dellu nga ci yàlla dootoo génn mukk péeyab yàlla bi nga xam ne benn rekk la te kenn rek moo fa nekk yàlla ñu ko yàlla dégguloo moo tax ba koor doon ponk boo xam ne dafay ommat jaam bi jëmee ko ci dëgg-dëggi taqwa moo tax aaya ba ne la'allakum tattaquun koor dafay jëmee jàmm bi ci taquwaa muy ragal yàlla gi nga xam ne mooy sax ci li la yàlla digal moytu caa jóg waaye moytu li yàlla tere moytu koo def kon loolu la boroom xam-xam yi firee taquwaa ñi di ko tënk ci ragal yàlla akañ ah, dëgg-dëgg koor ku am taquwaa moo ko man lekk gaan ci biir néeg bi kenn doxul sa diggante ak moom lu dul ragal yàlla naan ngaan ci biir néeg bi kenn doxul sa diggante ak moom lu dul ragal yàlla leneen noonu leneen noonu kon danga fekk ne jaam bi nekkee nekkut di woor lu dul yàlla daf ko sol ak ragal yàlla mu door a woor yal na yàlla defal ñu loolu kon koor foofu la jëme jaam bi dëgg-dëgg ragal yàlla ragal yàlla gi nga xam ne moom rekk moo mën a maye yàlla amul dara lu mën a tax jaam bi am yàlla lu dul ci taqwa lay mën a amee yàlla yàlla na ñu yàlla may yàlla yàlla na yàlla nangul ñu suñu koor def ko muy nag koor goo xam ne koor gu ànd ak xéewal lay doon ci suñu réew ak ci réew yu mbooleem jullit yi yàlla ubbee ñàpp ci mbaaxam ak ci ngëneelam yomb na yàlla yàlla nañu ko yàlla defal kon dëgg-dëgg koorango ñëw na pour defar jaam bi ci jëmmam ndax yéen saa ne na suumu tasixu or leen ngeen wér kon koor dafay may jaam bi jëmmam mën a wér kon weeru koor soo ko xoolee da nga gis ne euh, lii docteur yi di wax ne tey dañoo ñëw pour faj doomu aadama yi gratuit yàllaa leen ko dàq kon koor a ngoog mooy hôpital bi nga xam ne ñëw na pour faj kenn ku ci nekk waxuma la ci dëkkam waaye kenn ku nekk ñëw na pare na pour ñëw fekk la ci sa biir néeg faj bépp jàngoro boo xam ne mu ngi ci sa jëmm yal na ñu yàlla dimbale ba buñ ko wooree bu benn jàngoro di seti ci suñ jëmm koorangoog ñëw pour faj roxo jaam bi roxo gi nga xam ne bànneexi bakkan yi daf ko muur ba mënta dellu ci yàlla su koor amee ci jaam bi rekk jaam bi dafay daal di dellu ci yàlla dellu ci dellu goo xam ne gu rafet lay doon ndax wax naa la ne koor melaw yàlla la kon su ci jaam bi nekkee jaam bi dellu na ci melaw yàlla yàlla na ñu yàlla delloo ci boppam moo tax yéen sallallahu alayhi wax ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi oor leen su ngeen ko gisee wari leen bu ngeen ko gisee waaye dëgg-dëgg yi pour ñu mën a am dégg gu xóot ci wax jooju nañ góor-góorlu dellu ci yàlla fekk suñ gis gi ñuy gis yàlla jeex tàkk ci yàlla ñu ngi ci xaal boobu waaye buñ jeexee tàkk ci yàlla it ba xeri nañ gis na xeri nañu ñu ngi ci xaalab baqaa'u walla ci maqaamam baqaa'u te mooy des waaye fekkin ña nga kontine gisuñ lu may yàlla dunduñ lu may ci yàlla yal nañu yàlla déggloo loolu kon ñoo ngi yemale foofu suñ kàddu koor ngoog suumu li ru'yatihi nañ woor te buñ gis ci koor gi lu dul yàlla nañ woor te bu dara tax ñuy woor lu dul yàlla nañ woor ci biñ gisee weer wi bu wari jotee nañ wari te continuer nañ doon dundee ci yàlla ñu di ko dund nañ doon yëgee yàlla ñu continuer di ko yëg nañ doon gisee yàlla ñu continuer di gis yàlla te kenn du gis yàlla ku dul yàlla yàlla nañu yàlla defal tawfiix yàlla ñu yàlla may ak dégg ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim yàlla nañu yàlla boole nangul ñu ngi gërëm mbooleem imaam yi borom xam-xam yi ci seen teewaay ci seen jottali gi ñuy jottali xam-xam ci barab bi yal na yàlla feyante ak ñoom ñàpp di gërëm mboole mag magi jàkka ji yal nañu yàlla boole nangul ñu ngi leen di gërëm yéen it ci liggéey bii ngeen di liggéeyal diine lislaam mënoon ngeen koo jëme ci leneen loo xam ne ci mbiram àdduna la rekk la waaye ngeen yëg ne ay doomi jullit ngeen ngeen jóg di ci liggéeyal seen diine yal na yàlla defal leen jàmm defal ñi nga xam ne ñoo amee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 xayril maxduubi alayhim wala daalin amin allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfaatihi lima axlaqa walxaatimi lima sabaqa naasiril xaq bilxaq maa yasifuun wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil aalamiin jazaakumullaahu xayran